marhaban dogal yu président Macky Sall ci ndajab conseil des ministres ya ni ki démb bokk na ci li gën a fës ci xëtu yéenekaay yi le quotidien nañu président Macky Sall daat nay sàkku ci Marie Khemesse Ngom Ndiaye mi mu tabb bees def ko ministre de la santé na ci doxalinu bërëbu fajukaay yi loolee waral suñu naatango yi nañu moom Marie Khemesse Ngom Ndiaye daal dinañ koy sas ngir mu faj bërëbu fajukaay ya nga xamante ni ñoom ñëpp dañoo wopp fu mu toll nii te fi lekk njeexitalum weerum juin la président Macky sas ci boobule le soleil nañu donc le président Macky Sall daal di génnee ni kii jëmale ko ci mbooleem école de formation yi moo xam ci ñu nekk ci public bi ak ñu nekk ci privé gi suñu naataango yi ne faatu ko fukki bébé ak benn ci hôpital maam Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tiwaawoon tax na ba kilifa yi réew mi daal di ubbi seen ay gët ngir waxante yi ci système sanitaire réew mi ci joojule jamono yéene las mu ngi xam le ni ngi xaarandi président Macky Sall ci Russie ngir mu génne àdduna bi ci bu njàqare bi ñuy dund jëmale ko ci ab guerre mi tab bi ci diggante réew moomi mi njiita réew bu waxtaan ak moom ndaje moomi nag bokk na ci li ko waral moo di njiita réewu Sénégal mi nga xamante ne itam mooy njiital Union africaine daa fas waaye itam ci nu ñuy fexe ba ñu mën a libéré stocku céréales yi ak yeneen ak nga xam xamante ne jamono jii daa amee blocage rawat na nag ci lu jëm ci wàllum Afrique ndaxte yéen kaay la Soleil mu ngi xam bii le conflit daa dina jural réewu Afrique ay jafe-jafe yu tar bés bi le jour ñëwaat ci xalifu général Medina Baye di Cheikh Mahamadou Mahi Niass jëmale ko ci ab médiation bi mu amal la fale ci Soudan yéen kaay bi nañu ci ab tukki nemmeeku bi mu amaloon na ci boobule réew jëmale ko ci ab mission ngir jàmm daa dafay delluwaat rawatina ci région wu Darfour xalif généralu Niassène yi daa dinay def kémtalaay kattanam ba dajale ñi nga xamante ne ñoo doon ngi artu di xamle ni bu ñu moytut njëgum xarum tabaski dina yokku lool ne daa ñàkk rax si dolli itam cher bi jéggi dayo ci jojile jamono askan wi ñu ngi sampub laaj ne ndaxam koppar yu ñu wax ni moom la ñu daal di dugal ci tabaxum ay juntuwaay di maanaam ay infrastructure ci Kër Massar lu am la am déet ngir mën a aar askan wi ci waame gi di maanaam inondation yi yéene kaay Sud Quotidien moo samp laaj bu nu mel ci ab gëstu di maanaam ab dossier bi mu jagle liggéey yi di maanaam travaux publics yu ñuy amal jamono jile tembe ngir aar askanu Kër Massar ci inondation yi ci wàllum politique yéeni kawal Walfadjri quotidien moom mu ngi xamle ni Aminata Mbengue Ndiaye mi secrétaire général parti socialiste moom la ay àndandoom daal joxoñ baaraamal tuuma ne moo nangu ñu daal leen sacrifié ci investiture yi ci coalition benn bokk yaakaar mi nga xamante ne dañ leen dumoyu ñoom waa parti socialiste dooleel ci bu baax a baax ñii di waa APR maire bu Thiès Babacar Diop moom itam moo ngi woy béte di naqarlu nu ñuy amalee investiture yi ci biir coalition Yewwi Askan Wi njiital FDS jàpp mbir mi jaarut yoon te tegut itam ci benn démocratie rassemblement jëmale marché bu waa Yewwi Askan Wi bëggoon a amal ci place de la nation yéeni kaay Vox Populi daal xëy di xamle ni préfet bu Ndakaaru daal koy gàntal ndaxte daal xamle ni am nañu jiitu waa Yewwi Askan Wi ci boobule bërëb di abu foire écologique bi fa nar a amal ni ki ëllëg ci àjjuma jilee ñoom waa Yewwi Askan Wi bu ñu sukkandikoo ci suñu naatango yi daal dinañuy nangu boobule dogal toxalaat seen boobule rassemblement daal koy yóbbu ba ci àllarba